Sall di ca tuumaal njiitu réewum Sénégal ak Aly Ngouille Ndiaye naka noonu waa Mimran yéene kay bi ne coow li kay jamono ji nag ma ngay bëgg ëppi loxo groupe Mimran ak waa ministère des mines ña ngay weddi nag kàddu yi nga xam ne moom la maître Moussa Diop yëkkati Aly Ngouille Ndiaye ci jamono joojee nag daal di déposé ab plainte ci kanamu yoon maître Moussa Diop déglu nañu ko ca sûreté urbaine Vox yi nag ne jamono ji kay garde à vue nañu ko moom maître Moussa Diop ginnaaw bi ñu ko dégloo démb ci sûreté urbaine ci ay kàddu yoo xam ne rek moom la yëkkati di àddu ci coowal exploitation président wu Jama fii ci réewu Sénégal arme yi nga xam ne rek am na ca palais ba ak ay documents yoo xamante ne nii dafa confidentiel loolee nag moo waral procureur daal di sóob loxoom ca mbir yi ngir ay leeraange Aly Ngouille Ndiaye déposé na ab plainte Guy Marius Sagna ci jamono joojee nag di sàkku ñu amal ab commission d'enquête parlementaire jëmale ko ci mbir yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu mine ak géologie di leeral ci biir yëglekaay bi ne mosuñoo jox permis d'exploitation Jama réewum Sénégal les échos di fësal maître publique moom mi ci sóob loxoom ginnaaw ay plainte yoo xam ne rek déposé nañu ko kàddu yu rëy yi nga xam ne rek moom maître Moussa Diop yëkkati na ko loolee nag la yéenekaay bii di Le Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu ne Aly Ngouille Ndiaye porte na plainte procureur nag daal di dugal loxoom jamono joojee nag waa Mimran ak waa ministère des mines ña ngay ragg seenub der ci kàddu yi nga xam ne rek moom la maître Moussa Diop daal yëkkati moom leader déglu na ko ca sûreté urbaine ba nag yi nga xam ne rek maître Moussa Diop xamle na ko yéene kaay boobee nag na at mi daal atum tuuma rek la ñu ko war a dippee ba tey ci yéene kaay bi la ñuy desani rek ak keneen koo xam ne mi ngi jëflanteeg wàllu yoon ci jamono ji te nekk ci guddi gu bët setagul moom itam bokk na ci Ousmane Sonko tey jii nak lay xam ëllëgëm ngir bokkaatam ci liste électorale yam déet audience boobee nak tey jii la ko fas yéenee amalee ci tribunal bu Ndakaaru ñi nga xam ne nag ay allié lañu ci leader bu Pastef ña ngay woo askan askan wi ci ab mobilisation yéenekaay bi ne borom ñaari ruu yi nag tere nañu leen ngir ñu daw niki tey jii nag réew mi quotidien dellu siwaat nag ne procès tey jii dox ci diggante Ousmane Sonko ak état bu Sénégal ab sànni tàccu bu mujj lay doon ci njiital Pastef l'observateur di ko feelu na tey jii kay talaata ju fees dell ak yaakaar la ci Ousmane Sonko ba tey ci yëglekaay bi di l'observateur ma nga fay amal waxtaan wu yaatu séq koog Moustapha Ba jëwriñ ji moom ma ba indi ay leeral ci dëgg yi nga xam